siyaar ki si nekk ma lay jox sa wàccuwaay li ñi nit ñi doon xaar mm, tàbbi nañ ci maanaam jot nañu nouvelle bi jot nañu nouvelle bi euh, Amadou Ba finalement mooy nekk euh, candidat Benno Bokk Yaakaar <laughs> am na ñaa xamante ne ñu ne du surprise xaaroon nañu ko waaye man dama yaakaar ne nit ki baa demee ba di ko jiital si parti day fekk mu def ay résultat ci élection yi weesu vu que deful résultat li tax ñu jiital ko tey na sama xel que si mel ni Aly Ngouille Ndiaye potentiel la woon pour ñu jiital ko parce que am na base politique am na doole fële fële si Linguère Abdoulaye Daouda Diallo kazalika yi mais quant à Ba mi nga xamante ne dañu ko gañoon parcelle dóor yu mitti sax tey ñu jiital ko maa ngi dégg nag ay démission xaw ma nax dil la xaw ma nax lan la même ba dee dil sax seen dil du baax ndax lan ñi naan premier tour mën na am deuxième tour deuxième tour du am maa leen ko waxaat tey d'ailleurs ñoom yaa neen jàll sax parrainage ñuy démissionné bëgg a demal seen parti boppa parce que ñi ñu ñu ngay xalaat ñu démissionné après deuxième tour ñëw ñu ñëwaat ñëw fekk seen seen euh, Amadou Ba loolu ay ay gént la ba kenn xalaat APR di dem deuxième tour. Mhm. waxoon na ko ay jamono ne parmi ces trois bu ñu tànnee kenn kenn ki dina démissionné yàlla def tey la ma waxoon am na vidéo yaa ngi fii waaw. am euh, ñu xëy Aliou Ngouille Ndiaye démissionné ndax dañ tànn Amadou Ba c'était pas une surprise ah du ab gis-gis du du question laa gis mais c'est juste analyse politique la donc euh, li ma wax waa ñàkk jàmm mooy tànn ngeen seen leader admettons <laughs> dina def résultat mais ku gañuwul benn élection <laughs> nga koy jiital pour mu nekk président du Sénégal <laughs> yàlla baax na yàlla waxul kenn dara di leen fàtte Ousmane Sonko day bokk incha allah il sera le candidat de Pastef wala bokk le candidat de coalition Sonko 2024 incha allahu rabbi